sama gaay par par leen ko mu yaatu kii bee amoon problème léegi moo tax live bi dagg moo tax live bi dagg reprendre naa ko léegi nii partager leen mu yaatu euh, Ahmed Khalifa Niass dafa nekk nit koo xam ni dafa bon dafa nekk nit koo xam ni dafa yées dafa nekk nit koo xam ni réew mi ñuru ko loolu moom mooy dëgg parce que bu fekkoon Sénégal ñor na ko nga taxaw ne yow am nga parti politique depuis ñaata at ñaata at Ahmed Khalifa Niass nga ne yow am nga parti politique ban projet yow Ahmed Khalifa Niass nga mas amal yow Saalum gi nga dëkk ban projet tey bu fekkoon am nga benn capacité am nga benn patriotisme ci Sénégal bi nga ne sa parti boobu yaa ngi ko tuddee les alliances xawma la patriotique xawma nan yaag Pastef di def sa tappale yooyu tey Macky sàll ñëw na Kaolack googu nga taxaw di ko jàmbat ab tali boo xam ni da ko waroon a defar tey te defarun ko tali boobu bu fekkoon am nga benn capacité ah gëm nga sa bopp am nga benn taxawaay ci askanu Saloum tali boobu Macky Sall du fi toog 12 ans ba jóge fi te defaru ko mais nekk goo nekk doomiram nekk goo nekk xaj boo xam ne tey jii askan wi ñuruñu la nekk nit koo xam ne koo xam ne sa privilège si bopp dong la ñor ak foo taxaw di ndamoo ay xalifa ñasay sama baay ak nangam sàngam xalifa ñas jur la taxul nga baax xalifa jur la taxul nga baax sa baay ku jeexoon ci yàlla la boroom xam-xam la jur ay boroom xam-xam ñu jeex ci yàlla mais yow bokkoo ci yow ci yoonu sayaatiin nga jeex yow lu bon rek ngay wax lu ñaaw rek nga yéene saw askan torox tànge rek boo sañoon sénégalais ci la ñuy nekk parce que da bëgg a nekk nit koo xam ne yor sa yi jàpp ne am nga teraanga di dimbali yenn gor yi pour di leen man di xasak ak di man di naan leen diwoo ma jur ak sama maam ak alxuraan bi may nàmp la ma ko sama yaay jàngal ak nangam sàngam Ahmed Khalifa Niass lijjantiwul la waaw bu dee bi ngay jàng wax jàngee la wax ci baatu alqur mais dalaa tax a baax taxulaa baax dangaa bon dangaa yées loolu laa doon wax ci yow di wax sénégalais yi Ahmed Khalifa Niass gi te am na lu ma fi waxoon jamono jee passé nee naa leen bis bu ngeen organiser woo ci ruuse yi bis bu ngeen xamee seen bopp xam taxawaay bi ngeen war am ñii dootuñu dootuñu wax parce que dootuñu am lu wax mais ñàkk organisation moo waral lii ak yenn vidéo yoo xam ne am na dafa am ñoo xam ne tey maanaam bu leen mës dugg ci combat ay euh, ay ay député laa bëgg a nekk ak bu leen dugg ci loolu parce que bis bu ngeen demee ci liste yi di ngeen bàyyi benn fidd di ngeen bàyyi benn vidéo boo xam ne ma jox boo xam ne ma jox leen ci benn exemple jàpp leen ci waaye ngeen euh, aimé live bi partagé ko lu ko mooy rek dina dagg euh, ma jox leen ci benn exemple rek ku ci mel ni dàmbooj dàmbooj depuis bi ko falee ba léegi ah maanaam point bi nga xam ne fa la nekkoon maanaam dekkal wax yi mu doon wax ak sensibilisation bi nga xam ne doon na ko def ak leeral Sénégalais yi depuis boobu ba léegi loolu dafa xaw a raal te pourtant loolu lu waroon a am luy continuer la parce que xeex bi dafa toll foo xam ne tey jii amagun benn secteur bu nu war a bàyyi fin ko téewoon nan ko téye foofu dafa am lu ñuy xaar ci kanam kon yéen ñi nekk ci réseau yi di wax sénégalais yi xam leen bu leen trahir xeex bi trahir xeex bi mooy di xeexa xeex sénégalais yi xam leen ngeen taxaw législative yi jub si ku ne taxaw naan waaw député diaspora laa bëgg a nekk député sàngam laa bëgg a nekk bu leen dugg ci yooyu bu leen dugg ci yooyu fii ngeen kookal foofu la fii la leen yàlla sunu borom soxlaa fii la leen askan wi soxlaa ci xeex bi ci defar réew mi ci doxal dëgg Sénégal ci biir réew mi fii la leen ci yàlla soxlaa kenn ku ci nekk fa nga toog toog fa bu leen soxla ay postu ministre ak ay postu député ay postu DG ñu bari ci yéen amu leen compétence boobu ñu bari ci yéen bu ñu leen defee député barki alxuraan xam gu leen sénégalais yi xam la mais du seenum njàng du seen xam-xam du seen patriotisme billaahi loolu bàyyi leen ci xel bu leen trahir xeex bi xool leen ci nit ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakken ci xeex bi xool leen ñi nga xam ne da seen tànk da cee dagg xool leen ñi ngeen xam ne dañ cee ñàkk liggéey loolu sama mbokk sama mbokk patriot yi laa koy waxal ñun xamante nañ ci suñu biir am na ci ñoo xam ne ay tappalekat lan seen làmmiñ yu rëy yi seen data nday yii ñuy ubbi di wax guddeeg bëccëg yëpp ab postu député la ak 4-4 bu ñu leen jox ak bu leen woo président bu leen woo loolooy dëgg xeex bi nag bu dee da ngeen koy def pour réew mi da ngeen koy def pour askan wi da ngeen koy def te yàlla tax loolu lépp tey wut sa nekk ci seeni xel wut sa nekk ci seeni xalaat loolooy dëgg man samay man booy malika nag samay wax neexul waaw parce que faruma kenn man dëgg laa àndal dëgg laay wax ci dëgg laa fës nee sax loolooy dëgg bu kenn xalaat ci àdduna bis dina ñëw ay booy malika nekk ay conseil maire rek man doxuma ci yooyu doxuma ci nekk ay maire doxuma ci bis bu ma doxee ci nekk ay maire tey taxawaay bi ma am malika bis bu ma nekkee meeru malika amul kuy am taxawaay boobu di ma ko opposé kon ma ndeyi meer te jafe-jafe yi daa bari ci dëkk bi te ñi am courage am ak courage bu mën a yàq am courage bu mën a def lu bon ay fokk mu am ay nit yu am courage mën a jàkkaarlook ñoom toj seen cott ndey ban xam ni réew mi du seen tool yi bàyyi loolooy dëgg loolu moom mooy dëgg kon nag am na ci yoo xam ne bu leen ci dugg man loolu laa leen di wax bu leen ci dugg di yàq xeex bi bari na ci ndaw ñoo xam ne mënugu wax bari na ci ndaw ñoo xam ne am na ci loo xam ne maîtriser wun ko ci dëkk bi loolooy dëgg kon taxaw leen am leen fulla am leen fayda ci li may waxaat nag maa ngi ñëw ci mu Moustapha Sy almaktoum waaw maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar di la jox sa wàccuwaay mais sëriñ bi maa ngi lay xamal ni la man de bu ma sañoon am na wax yoo xam ne doo ko wax ci pénc mi parce que dangaa tàmbalee jibal wax yoo xam ni képp ku ko jibaloon ci pénc mi avant nga koy jibal ñun la yow yàq diggante Sonko ak Jomaay ci nga jubte muy wax yi ngay wax parce boo bëggee ñëw tagg Jomaay Fay xalab Ousmane Sonko ak naan ko yow la Sénégal ay falak jëral say responsabilité mooy bul déglu Sonko bul déglu Sonko sëñ Moustapha Sy yow yaay président parti pire tey Aline Mamadou jam yi tey bu falu woon tey ci seen diggal tey ci eh, ak xam gu la sénégalais yi xam tey jii nii wëlbatiku ni du la déglu bu boobaa nga tam ko dëmm sa njaboot tam ko dëmm loolooy dëgg Basirou Diomaye Faye kàdduy sëñ Moustapha yooyu bu ko déglu boo ko dégloo sax torox tànge la boo ko dégloo sax sànkute la sëñ Moustapha nag sunu soppe la sunu sëriñ la sunu baay la sunu nitu yàlla la goo xam ne tey am nañ ci moom cofeel mais nag politique bii ñu bokk nga am sa parti politique ñun ñu am sunuy gis-gis ci réew mi boo waxee sa gis-gis dañuy wax sa gis-gis jomaay man booy Malika maay wax ak yow bul déglu sëñ Moustapha lim la wax bu ko déglu déglul Ousmane Sonko tey déglu ko suba déglu ko ginnaaw suba parce que bu la Sénégalais yi wóoloo ginnaaw yàlla Ousmane Sonko la yow la yàlla def président de la république mais amal ngor sàmm sa ngor sàmm sa kóllëre sàmm sa diine bul déglu sëñ Moustapha intérim lay wax waaw parce que xam na ni moom ab politicien la ay député la bëgg ci réew mi bu fan bu sañoon partem falu loolooy dégg bu sañoon parteem falu loolooy dëgg man booy Malika nag dëgg laay wax xam naa ne nag sama mbokk yee waa yëmbal dinañ jugati daanu gàngari man sama yoon nekku ci ëppale leen ma dara ci sëñ Moustapha moo ñu sañ a wax dëgg mais penc mii ñu bokk képp ku fi wax loo xam ne dañ cee am suñu xalaat dañuy wax suñu xalaat yow nag yàlla daa def nga ëm ñu ëmbal la cofeel nga am ci ñun respect am ci ñun yëg-yëg parce que nag bi mu mettee ba metti si Malick lu way wax wax wax ni ne na ngi tax fi nga taxaw di wax sa gam yooyu yag nga ci taxaw di wax luñu arranger sa gam yooyu yag nga taxaw di wax luñu satisfaire ñu ci ak yow bis bo waxe lo xamni ci sa gam nak anduma ci damay taxaw fi ni anduma ci man non la mel man non la mel man la Abdullahi jamu bi yalla bi man wow la mel waaw sa gam yi nga li nga taxaw wax ko wax boo ñëwee ni ay Ousmane Sonko nangam sangam këram këram wax ay waxu santas bëgg a ñëw ay jomaay ku baax la jomaay nangam sàngam kon day mel ni Sonko baaxul te boo xamee jomaay Sonko tax am leen connaissance am leen connaissance ne ay kilifa ngeen bàyyi leen di wax ci pinc loo xam ne xale yi dañuy toog fii di leen jubbanti sëñ Moussa Faak sama bàyyi laa ci yemale loolooy dëgg maa ngi lay ñaanal jàmm nag si Malick di la ñaanal gudd fan gu sax dak gu ànd ak wér maa ngi la koy ñaanal yàlla may la gudd fan may la wér mais na nga xam ne ah yaa ko wax ci sa gàmmu gi dëkk bi réew mi daa changé bu réew mi changé nag mag ñi am seeni xalaat ci pénc mi ndaw ñi am seeni xalaat ci pénc mi kon nag mag mu fi bëgg ndaw ñi warmal la na nga fexe ba say xalaat ak say wax bu mu dépassé ndaw ñi na nekk loo xam ne ndaw ñi dinañ ko mën a dégg ci dëgg ñëw waxtaan ak yow ci dëgg loolooy dëgg lii nga def nag rafetluwuma ko da nga ñoo wanati sa bopp rek parce que yii yàgg nañ koo gis ci say gàmmu waaw léeg-léeg nga wax loo xam ne sénégalais yëpp ciy ànd mais léeg nga wax loo xam ne kenn du ci ànd loolooy dëgg li may wax sénégalais yëpp a ko xam jàmbaar nga nag yàgg ngi ci xeex bi xeex nga ak du Diouf xeex ak Ablaye wàdd dugg nga ci kaso lu ne daj nga ko ci sa baay daj na ci lu ne ñu koy ñaanal yàlla yokk ay leeram taas ñu ci barkeem muy almaktuum lu mu wax ci réew mi nit ñi teg nañ ci seen bët mais na nga xam ne nag ah man de tontuwuma la ngir ngir sëñ Moustapha mais dama lay tontu ngir Moustapha si président pire. jomaay bu ko déglu bis boo ko dégloo da leen di tasaare du ngeen am ay député bu sañoon assemblée bii am fi majorité loolay dëgg sëñ Moustapha bu sañoon assemblée bi am fi majorité majorité boobu nag la leen bëgg a xañ moo tax muy jël jomaay di dóor ci sonko loolooyu dëgg li nga def nag wuroo koo def man booy Malika ànduma ci tey ànduma ci suba ànduma ci ginnaaw suba yow sëñ Moustapha yaa waroon na ñëw fekk ñuy jaxase te jomaay ak sonko nga taxaw ni leen seen ànd bii na wéy parce que yow posture bi sonko ak jomaay am noonu nga am ak waa pir googu yaay seen kilifa mais tey boo tabboon nit tey mu dem sénégalais yi fal ko waa pir googu ndax di nga nangu sa candidat boobu am beneen gis-gis bu bokkut ak say gis-gis bu boobaa ñun sénégalais yi buñ ko nee sëñ Moussa Fall faluñu la moom lan fal loo ñu loo ñuy wax nan waxante dëgg nag dëgg yàlla moo ko moom quoi ñun Sénégal lii moo ko yàq ko quoi waaw Ousmane Sonko mooy président parti parti Pastef comme yow ni nga nekkee euh, président parti pire el tay ni sonko tay dem ba xamni munutul dem tay mu jital jumaay yow nga dem ba xamni yow sang magel mom mo la ko may sa a sa wër yaram mayatul tay nga nek president de la republique tay yow yaay borom parti bi yaay president bi seigne mustapha mais tay buñ falon tay cheikh tidiane yum wala ñu falal ñu tay alid mamadou dia ndax bu boba dina ni seigne mustapha yow faloma askan wema fal ah nan seet yalla ci sun taxaway nan seet yalla ci sun taxaway sun doxali ni nan ci seet yalla réew mi nag dafa changé dafa changé de dafa changé ci Malick maa ngi lay jox sa wàccuwaay nag di la ñaanal jàmm di la ñaanal sutura gu ànd ak wér waaw mais nag dee leen xool li ngeen di wax ci pénc mi loolu moom mooy dëgg ndaw ñu léegi dañoo bokk ci réew mi am ay xalaat ci pénc mi te dañ koy wax loolu moom mooy dëgg waaw yéen sama mbokk waa yëmbal yi nag maa ngi leen di jéggalu bu baax a baax tey moom waa yëmbal daa ñu daan nu gàngri moom sama waa kër maam tey ñu daan sëñ Moustapha kenn du ko tudd mais pénc mii moom ku fi wax dañ lay tudd man booy Malika moom sama làmmiñ wii ku nekk ci pénc mi ci muccoo ci waaw ku ci mucc rek waxal loo xam ni daf maa romb mais lu dal ci sama kaw ma defaat la ko man loolu man moom mooy loolu moom lu leer laay wax nag sëñ Moustapha mën nañoo wax ak moom sëñ safaa day waxe ki baayam day wax ñépp lay waxal moom kum jàpp ni day day wax day wax ak yow luy nag moo ñu ko jàngal yaa ñu jàngal courage gii yaa ñu jàng courage gii nekk ci ñun ci yow lan ko jànge ci yow lan ko jànge dangaa nekk ak say baay nekk ak say mag nekk ak mais dangay wax sa soxla lool nag ci yow lan ko jànge waaw yi ci yow lan ko jànge moo tax ñu am taxawaay bii maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar di la wax ne nag loolu du sa wax waaw ay jomaay ay dañ koy njatt Sonko njattul jomaay jomaay buggut a def dara Sonko ni ko buggoo def Sonko buggut a def dara jomaay ni du ko du ko def waxu saytaane yooyu baleen ko waaw Moussa Fass yeeg Moodu Kara yamale bàyyi leen seen wax yooyu ngeen di wax yooyu baaxul yooyu baaxul yooyu baaxul sëñ Moussa Fass du sa wax man booy Malika ànduma ci yéen ndaw ñi nag yéen laay waxal ku ma saaga ndey xam ngeen ma maa leen dàqa saaga fop lu leer laa leen wax waaw bu buñ tuddee sëñ Moustapha wala ñu tudd sëñ ma Massamba wala ma demba sob si fi mu ne su ma ko dugalee TikTok ngi mais bu ngeen ma saaga maa leen dàq saaga fop déggu leen ma nag ma saaga ko fi defu fi luñ ko fi saaga sëñ Moustapha defu fi luñ ko fi saaga saagawuma ko mais xalaatam yi mu wax ci penc mi samay xalaat laa indi xalaatam yooyu mu wax nag kenn saagawu ko ñu tontu ko ci sunuy xalaat sama xalaat yi ku ma ci saaga damay lay saaga lu leer laa lay wax ma tër leen koo araftu man xam naa leen bu baax baax mais xam sama bopp a tax nag ma leen di araftu am na gaal goo xam ne bu ngeen ma ci dugalee du ma bàyyi fii laay toog di dëgg seen ndey guddeeg bëccëg na leer na leer na leer bu baax a baax wasalaatu wasalaam ala rasulullah vive révolution vive askanu Sénégal vive taxaw temm vive mag ñi vive ndaw ñi vive taxaw leen ñu am sunu législatif yoo xam ne tey am majorité boo xam ne ci réew mi kenn du ko laam-laamee kenn du ko laam-laamee Uau!